salaamaaleykum mbokki Jalaaw ñoo ngi nuyu ñëpp ku ne turam ak santam du nuyu eh, suñu bàyyi ak suñu yaay ak suñu rakk yëpp du nuyu waa Jalaaw cat ba cat du nuyu tamit eh, ñi nga xam ne dañu nekk si jaspora bi maa ngi tudd Mansour Diouf actuellement commune bi man maay daaf bi maa ngi yor tout ce qui est qui est relatif aux affaires financières. maanaam wàllum koom mi loolu man maa ko yor si commune bi waxtaanu tey bi nag euh, waxtaan bu gàtt rek lay doon pour apporter ay ay leeral tuuti rek parce que lënt lënt fan yi yëg nañ ne bari na si dëkk bi te li ëppal li ko indi mooy ñàkk information Jalaaw dafa fal benn commission wala boog benn conseil rural bu daanaka bu yees Alaaji Mass Mbengue jiite ko mu nekk suñu kilifa ñun ñu nekk ay ndaw ànd ak moom mu ñuy orienté te am mbébét bu baax ci dëkk bi lu ne nañ fu mu toll nii daanaka Baye Mass eh, amul amul jotam dul fexe eh, def ay réalisation liggéeyal dëkk bi yaakaar naa jombul ku ci nekk gis na ko waaye li yàlla di def fan yii si biir réalisation yooyu dañ fa am suñu benn réalisation muy sant culturel bi nga xam ne dañ ko bëgg a def mu yëng andi coow lu bari am ñu bari ñu si prononcé wu ñu gis ni nit ñi ñoo ngi nekk di di xëccoo wala di acharné wu si la nga xam ne xam naa bu ñuy xamoon lan moo xew yaakaar am na mën na am loolu yëpp du ci am te ñun mbokki nen lañ ay mbokk nag bu ñu nekkee faaw ñuy waxtaan. loolu mooy benn point bu njëkk bi nga xam ne bëggoon naa tey ñu waxtaan si beneen bi tamit mu concerné euh, tunu ñaayam njoot bi nga xam ne ñun waa yéen géej dañu mas di ko conserver jalousement am fan yële benn mbokk bu génn def si ay déclaration ñu bëggoon tamit andi si ay éclaircissement ba tey. waaw concernant le centre culturel jomul ñëpp xam nañ ni centre culturel ñoo ngi ko prévoir woon diggante ñangal ak euh, nditax mais malheureusement bi ñu defee pose première pierre ba tey ñëpp gis nañ ko observer nañ ko tamit mooy que ne euh, seen ay borom dañoo ñëw mur seen ay. seen terrain parce que dafa am ñu ñëw ni foofu kat ñoom ñoo ko moom te ay na yéwén ñëpp xam nañ ne ñoom ñoo ko moom donc euh, la fa desoon daanaka lu ñu soxla woon si pour def édifice bi daanaka matatu ko woon. loolu benn raison la beneen raison bi tamit mu nekk lu ñëpp xam mooy que ne euh, foofu yoonu ndox la boo fa booy traversé diggante ndi tax ak ñangal boo geesoo tuuti sa càmmañ rek di nga gis ne foofu yëpp yoonu ndox la loolu nag moo indi woon équipe municipale bi doon jéem a jëf ay jéego pour am faneen fu ñu ko def parce que depuis ñu accédé yaakaar naa c'était le premier projet bi nga xam ne euh, Baye Mass jo teeloon na si jóg ne dañu dinañ ko teel a def si loolu ñu continuer woon si doon si def ay jéego ba am si ay avancé bu ñu demee ba projet bi war a démarrer nag voilà après ñu amoon problème espace si la le waxtaan xool on avait regardé site yu bëri ba si site bu bëri ba si site bii nii xam ne moo nekk si maire évoqué mais malheureusement foofu dañ fa war a euh, municipal am na beneen projet tamit boo xam dafa donc après avec le conseil municipal ak euh, tous les membres ak tous les acteurs on a vu que si gannaaw euh, terrain bi si diggante terrain bi ak y yenn kaw am na espace ba nga xam ne war nañ ko mën a def foofu sur ce moom la ñu toog xalaataat si bu baax après le conseil si la ko si la ko délibéré unanimement nag unanimement tous les tous tous les villages étaient représentés waaye ni kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi fi ñoo ngi fi woon waa ndi tax ba ñëpp ñoom ñoo ngi fi kon ñu xam ne rek euh, objectifu maire lenn rek la woon mooy fexe ba projet bi nga xam ne am nañ ko te mu nekk projet boo xam ne yombul dix communes ñoom ñoo ko am au niveau du Sénégal mu bañ ñu rëcc pour ñu pour ñu bañ mu bañ ñu rëcc foog ñu seet benn espace ñu defee ko kon bu ñu amee benn espace malgré que dina metti foog kon foog ñu jéem ko fa def ndax moom la am man aujourd'hui yaakaar naa li ñu gën waroon gën a interroger mooy nan la ñu def ba yenn arrivé à ce point soxla édifice amul espace. yaakaar naa nit ñi si loolu la ñu waroon gën a interroger wu mais tey jii nii un conseil qui fait un euh, un travail pour am lu mu defaral waa dëkk bi ah bu amee espace ba nga xam ne délibéré nañ ko ko légalement moom moo ko moom war na fa mën a def son édifice. ah loolu nag bu ñu bi ñu demee di ko liggéey am na ay opposition comme tout travaux yaakaar naa autoroute à péage bi bi ko Abdoulaye Wade def coow lu coow lu bëri am na si ay stade yi nii yëpp bi koy def coow lu bëri am na si loolu ak loolu ñoom ñoo ànd li xew fii du lu bees mais ñu ni nen la ñu ni nen la mooy que lépp war nañ ko mën def euh, fii dal ba lépp loo xam ne moom bëggoon nañ ko ñu mën ko am euh, réaction yi nag am

bi mu ñëwee di contester li mu contester nekkul ne terrain bi dafa jege ay ay janasa non non li mu contester mooy que terrain bi foofu noonu moom moo ko moom si loolu la ko maire ne fii kat dañ ko délibéroon bu yàgg pour mu nekk parking ñu waxtaan pour ñu jéem a trouver solution maire ne ko ah bu fekkee ne yow yaa ko moom léegi ce qu'on va faire pour trouver une solution mooy que.

bon gannaaw loolu comme ni ngeen ko xamee après si la commencé am mu continuer am ay ay wax yu ndaw te yaakaar naa lu mënoon ñàkk la ndax bu fekkee ne les premiers à réagir ñoom waxu suuf lañu ñu waxoon ñu régler ko je ne sais pas par quel moyen lañu lañu la fexee ba xale yeen kaw yi ñenn ñi bokk du mën xale yeen kaw yëpp parce que ñenn ñi c'est une partie ba nga xam ne voilà euh, c'est une partie de yeen kaw jog ni affaire bobu du am fof après tractation yi commencé am yakarna na le maire jotone na avec euh, les des notables yéen kaw expliquer le projet ay ils ont adhéré dañu adhéré won ce projet bi quand même loolu euh, ñep mën nañ ñuko ko tout pour dire que euh, maire bi deful won ben yoon ñew li liggéey si coobare bopam rek Faire ba impliquer tous les partis ba mu ñëwee waxtaan na si ak le le conseil le conseil ñoom ñu d'accord mu waxtaan ak waa yenn kaw yi ñoom tamit bon amoon nañu réticent mais bu ñu leen expliquer le projet quand même ils ont compris que lii nii c'est d'une utilité publique je vais être bref pour dire que projet bii nii ñun waa yéen dañ ko soxla woon ce centre là dañ ko soxla am nañu ko nag amuñu espace jéem nañu set nañu amuñu espace donc espace bi nga xamné am nañ ko dinañ ko jël dinañ ko fa def bu dinañ ko fa def maintenant c'est vrai que il y aura des contestations amna ay contestations mais ñu xamné rek euh ko contesté tamit da nga contesté lu illégal parce que déjà le maire conseil bi délibéré na ñaar ñi contesté ñëpp. dem nañu laaj gi seen ay imam seen i imam ne dara amu si parfois il faudrait qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont ñii conteste dem nañ seen ay imam ñu ne leen dara te yeeni kaw quand dëkk bu mag la yeeni kaw am na ay ay ay ay kilifa ya nga xam ne ay responsable lañu ñoom ñoo mën a wax si baatu yeeni kaw mais la tournure politique bi nga xam ne dañ ko bëgg utiliser sur dans cette affaire là ça risque de nous ay ay ay problème kese ay problème kese te yaakaar naa jaru ko politique jeex na politique jeex na ay trois mois si gannaaw nekkoon nañ fii di politique ku si nekk wax lu sa lu la neex am na ñu si wax lu nekk mais après les gens sont encaissés après Jalaaw décidé na Jalaaw a décidé que euh, monsieur Massamba Mbengue mooy meeram ku yabu rek mu nangul ko ko. parce que c'est Diallo qui a décidé du Macky Sall mon moko fal du Ousmane Sonko du Mas du Ken. mais c'est Diallo qui a qui a décidé que monsieur Macky Sall Mbengue moom mooy nekk mooy nekk maire donc yaakaar naa suñu mbokk yi nga xam ñom ñoom ñoo ngi nekk biir yenn kaw suñu ay mag ak suñu ay rak Euh ñu di ñaan rek la passion bi nga xam ñen ñenn ñi jëlee nañ ko ñu. ñu wàññi ko parce que ñi nekk seen gannaaw di leen manipuler di leen yóbbu si ba si ñuy jël édifice public ba nga xam ne c'est l'état moo ko moom moo ko moom ñuy jël les planches di ko damat ñu jël les planches dindi ko voilà di jéem ay dee yi ñu gasoon ñu suul ko ñi nga xam ne ñoo leen yebal demuñu woon donc bu fekkee ne dañu bëgg a defar bëgg a defar ba bëgg ba yaaka naa si am war nañu xoolaat li nga xam ne moom la ñu war a def donc appel bi def moy di wowat ñepp ci dal di wowat ñepp ci dal ndax amna na loo budul ak mbokk ñi génn ci caméra taxaw enlever tout ce qui est bien bon nga euh, entrepreneur da ko defoon budul won ak mbokk wala am lu am lu nit ñi set euh, leneen lay mujj yakarna bu mo amé la première chose qu'on a fait et man yëkkati naa sama téléphone wo le chef du village ne ko ah sa njabootkat ñoo ngi nekk di saccager le chantier chantier de l'état un chantier de l'état té en bon responsable Le mu ñu waxoon mooy que ne euh, raccrochel ma ngi wo les imams ñom lañu mënon def nañ ko moy ne jëm nañu wax ak sen ndaw mais malheureusement ce qu'il faut ce qu'il y a lieu de constater moy que y a un y a une personne derrière qui est en train de politiser le débat di len dougal si ay affaire ya nga wax deug yalla du la nga xam daf len di jariñ jalaaw yaakaar naa fi ñu toll soxla moy ay domam bolo pour meuna liguey et là damay saluer aussi euh, la grandeur de Khalil Sek, bi nga xam candidat la woon ak euh, Pam Ndione bu pur nga xam candidat la woon ndax buñu défé élection ba élection yi jeex.

développement am ci dëkk bi te dëkk bi tamit loolu la soxla mais tey jii opposition quand même on en a besoin il faut il faut le dire man je pense que ki nekk opposant euh, nekk opposant yàqul dara si si si si crédibilité wala nit ak nu mu mën a doxee mais que tout soit dans les règles de l'art parce que quand même nit bu fekkee ne yaa ngi ko topp di ko wax wax bu ñaaw di ko wax wax bu ñaaw bu tànk xam lu mësul tudd sa tur mësul a ba ñu dem ba dëkk yëpp dëkk bi yëpp fal ko wala boog la majorité parce que cinq candidats moom moom mu génne mu génne premier bon euh, bu fekkee ne mënoo ànd si liggéey boobu war nga am mandu gu toll ni ah toog wax dëgg yàlla nga toog nga seetaan parce que tey jii nii tous les acteurs de Dialaw sont unis dëkk bi toll na foo xam ne bu fekkee ne lii xam ne moom la moom la nit ñi bëgg. yow nangoo see ànd ak ñoom yaa si nar a ñaaw rek et ñu ngi woowaat ñëpp rek ñu woowaat ñëpp dans la sérénité et tout ak ñëpp ñi nga xam ne euh, ay acteur lañu ñu mën a woote si dal ñu woote si dal projet bii nii fi ñu ko tegoon sikk amul na dinañ ko fa def man na metti si ñeneen ñi mais sik amul ne dinañ ko fa teg man yaakaar naa li waroon nekk projet moy on euh, a problème ndax projet bi am musique mais le maire en tant que magistrat est sorti pour pour dire que calme pour calmer on dinañ ko mais ce sera d'utilité publique ba l'aspect culturel de fexé entre nous, nous, nous, nous, ko te ñun la dépendre xanaa du centre culturel bi bu ko tabaxee ba pare ñun waa Jalaaw ñoo ko moom donc ñun waa Jalaaw si on décide que centre culturel bi nañ ko tabax buñ ko tabaxee ba pare kenn du fa musique kenn du fa musique parce que commune commune moo koy gérer donc le projet ñu xam rek ne bu soobee yàlla dinañ ko fa def bu soobee yàlla incha allah dinañ ko fa def te am na loo xam ne mënatul a continuer il faudrait que ñu waxtaan si ak eh, wax ji mu leer yaakaar naa merci souligner ko loolu am na loo xam a continuer ay nit di liggéey ay nit di yàq am na loo xam continuer ni sab am na xam sabotage lay mujj sa à la fin l'autre jour taxaw nañ fi teg suñuy feet tout ça ay boy, am ñu ñëw jël jël ko. am un leader politique qui sort pour les défendre. jalaaw yëpp moom mbir ay ay xale jog ñëw dem sàcc si sàcc si une tonne cinq cent yow tu tu viens tu les défends sañuy xale nan la ñuy wax ak moom nan la ñuy wax ak ñoom. Nous avons inculqué la culture du travail loolu mooy euh, teg dëkk bi sax si vraiment mais euh, am na loo xam ne mënuñu ko yare suñu doom ñun ay lébu leen lébu ab lébu la problème ab du la d'autant plus mënuñu se défendre kon euh, xam point man si wax di au calme di wax ne bu centre fii ñu ko bëggoon def dinañ ko fa def am na loo xam ne nag jàll na mais mënta continuer projet bi projet jàmbur la entrepreneur moom moo koy samp dinañ ko sampaat nag ku si nekk mu fexe wax ak njabootam mu xam ne bu soobee yàlla di buñ ko sampee ku ko dindi yoon dina dal sa kaw xam naa loolu laa amoon rek bu soobee yàlla lu ma la nga xam ne bëggoon naa ko wax si si point boobu Hmm, beneen aspect bi xam ne bëggoon naa si wax comme je dis rek euh, politique daanaka jeex na c'est malheureux c'est malheureux quand même ñuy constater que ne ba tey y a des gens qui saboté moom moo leen tax a jóg dans tout ce qu'on fait c'est que amul ne population bi yëpp gis nañ ne ay amélioration moo ngi am fu nekk te nit ñi ñoo ngi apprécier donc euh, li waroon bépp nit ba nga xam ne wala bépp citoyen ba nga xam ne si jalaaw nga bokk li la waroon mooy nga fexe ba loolu jëm kanam moom mooy li ma doon waxoon rek certains acteurs yi nga xam ne ay bokkuñu woon ànduñu woon ak maire bi campagne non il se tue pour que ñun ñu am ay projet yu mag bon ñaayam njor nag non seulement c'est un problème de Dialaw mais c'est un problème particulier de Yéen Géej ñun waa Yéen Géej ñoo ne foo kenn du fa def dara moo tax euh, le jeudi passé le maire dafa dafa génnoon di ñëw c'était aux environs de neuf heures dix heures mu mu ñëw romb am ku fay liggéey c'est là que la ñëw fekk ma fii ma ne ma Mansour dama la soxla ma ñëw si biroom mu ne ma ñaayam njot dama fa romb kuy terrassé demal nga arrêté ma ko parce tundawoo dañu wax ne kenn kenn du ko laal si si lu noonu laa ànd ak euh, Badara chauffeur bi ànd waale ak euh, alaaj je pense ak euh, bi ñu ñu ma laaj leen ñu ne dañ leen ko après par la suite lañ ñu leur boss ki nga xam ne moom leen ko sant mu quelqu'un ñu waxtaan si téléphone mu ne ko maire bi kat moom à ce que ngeen arrêté boo leen paree tamit ngeen andil ñu seen ay papiers yi wane ne fii nii yéen tout ça dans le sens de préserver sur ce après la ñu tamit bon ils ont été compréhensifs ñu arrêté puisque c'est le magistrat de la ville moom moo ne ñu arrêté on dañoo arrêté quand même euh, ranger seen ay bagages mais à ma grande surprise euh, le soir un euh, benen leader bel leader politique est toujours le même il y va C'est pourtant yëg na ñun arrêté nañ ko c'est faux ngay gis que y a des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement et naturellement quoi si l'on le fait dem fekk ñi nga xam ne teg nañ seen ay bagages liggéeyatuñu maire bi arrêté na leen ba ñoom ñu war a indi seen ay papiers pour justifier que ne ñoom foofu ñoo ko moom wala moomuñu ko dem fa filmer que pour venir dire que non non Massamba Mbengue a autorisé ceci et cela gis nga xeexu xeexu ñaayam jot bi Baye Mass mi nekk maire bi tey moom moo si jiitu et ñun on sait parce que daaw euh, bi la personne en question. deme yàq bagage Tahib mbay xam nañ kan moo ko dimbali xam na ne dafa naroon tëdd parce que bagage jàmbur la jëloon saccagé ko depuis boobu ba tey moo tax day yebal ay xale ñuy dem di saccagé yi mais moom doo ko fi gisati mukk xam nañu intervention kan nag kan moo demoon def intervention pour que ñu bañ ko tëj donc am na yoo xam ne man je pense que jaratu ko fi Baye Mass mooy comme li mu waxoon rek la mu bañoon démb moom la gën a bañ tey tund woowu sax bu ku suñu programme xam nga ne am am nañ fa projet donc xel moo xelaatul sax ñuy bàyyi tund woowu noonu nit di jógee fu nekk pour euh, di fa mën a def yenn affaires yi liggéey moo fa amoon ça nous pris de surprise dem nañu arrêté ko waa dëkk bi loolu lay xam laa xam ne ñun moom la ñu moom la ñu signé woon wala moom la ñu waxoon waxante woon ak ñoom que tout ce qui est édifice wala tout ce qui est colline tout dinañ ko aar te ñun ñoo ngi si loolu la waxoon jaguñu si Baye Mass la xam ne da koy aar moo ngi si woon daaw moo sa jiitu c'est vrai qu'il y a eu récupération politique mais kan moo nekkoon euh, ki nga xam ne moom moo ko dirigé woon Baye Mass mii ni doon Baye mee nga donc bu fekk bu àdduna bu doxoon tey jii ba mu def le contraire bu il se fera petit yalla def na nak loolu bamu amé bamu ko gissé lamu ñëk def mooy que na arrêté pire on a vu que même bu fekkone le gars dafa am délibération limu occupé c'est beaucoup plus que fi nga xamné mom la wax dañ ko jaay te effectivement dafa wax né ay nit dëkk ñom ñoko ñoo jaay ay nit ñu nekk dëkk bi ni di dox mais pour ñu xam ko rek euh yéen moom moo ko moom foofu bu soobee yàlla lépp lu ñu xam ne dañ fay liggéey utilité publique kese lay doon ñaam njoot boobu moo tax boo leen gisee waaye ngeen kenn bougéwul parce que on ñun xamante nañu et ñenn ñi xam ne dañuy jéem a lëndëmal xelin nit ñi di wëndeelu fii di wax yenn wax du n'importe quoi quand même euh, seen waxi bopp la wax ñu leen di waxaat rek ne juróomi at dafa yàgg dafa dañ koy accepté nit boo taxawee pendant un an di ko saag masul fayu fayu lu ne nga wax ko ko masul wax ba tudd sa tur buy liggéey bàyyi ko mu liggéey tey euh, ñun vraiment euh, tous les cadres de Dialaw ñoo ngi bokk ci ay panel di xalaat pour dëkk bi nan la mën a doxee nit ñi nekkuñu tu ñu dans la négatif am na am na loo xam ne dafa weesu dafa weesu am na loo xam ne quand même dafa xew sax faf tey jii nii eh, ñu ngi koy souligner tey parce que dañuy def conseil tay on a vu que ben Massory Thiam mo mo ngi fi ñew avec un posi ay benn discours bu positif j'ai été très content et dëkk bi loolu la laaj na ah. dëkk bi ku am ce lu baax xamal ne le maire est ouvert le maire a toujours été ouvert mais tey la gën a ubbeeku tey la gën a ubbeeku ba mu faloo ba tey dafa tàllal ay loo xam ne dafa dañu bëgg liggéey. On wajalaw yep les artistes ñep té limu nek di liggéey ñep gis quand même luñu des étudiants yi ça. Vous avec les étudiants une subvention yi ça a été triplé un euh, logement maire jël en charge ba sen wifi sax maire bi en charge maire bi dem na fa fa ak di waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom côté santé ñoo ngi si avancé côté boo xoolee euh, bien-être de la population ñaaxay masul am courant tey jii nii Baye Mass wàcc na fa courant ndox bi moo nga fa yegg na ba si biir ñaa buntu ñaaxay donc euh, le maire travail. loolu amul werante maintenant nag ku nekk si ginnaaw na nga nekk si ginnaaw di wax et may tëjee rek di wax waa ne dëkk bi ñun ñoo moom il faudrait pas que une position personnelle ak euh, rancœur bi jàpp nous ñi tax ñu ñu bëgg a suñu dëkk quand même dëkk bi ñun ñoko Nous ñun wa and taxaw liggéey mois voire 5-6 ans ñong fi nekk di tey tout ce qui est route affaire yooyu ñoo ici. tout ce qui est éclairage public solaire yep ñoo ici. hôpital bi ici projet bi lycée bi ici projet bi xam tout stade bi ici projet bi moo ngi gor gor lu si si si aspect yu Correct, pour rek bëgg dëkk bi mu am mu mu mu naat mais force est de constater que bon comme ni muy amee rek. foo gisee ku bëgg lu baax rek na am ku bëgg lu bon maintenant nit ñi bëgg lu baax nag ñu ngi leen di ñaan euh, ñu regroupé wu xam ne Jalaaw moom ñu ñoo ko bokk rek dëkk bii nii ñun ñoo ko bokk rek liggéey rek moom lañ si moom lañ si bëgg nekkul ne nag bu fekkee ne gannaaw gannaaw yi wala gannaaw stade bi dañu fay liggéey que ne dañuy dañuy profané voilà ndax loolu bu naroon am imaam yi ñoo njëkk a bañ. voilà yakarna le maire en question c'est une personne qui nga xam bi nga xam euh, ay ay affaire de cimetière ay affaire de tout ce qui est religieux de ci yag participer d'ailleurs jàkk yu bari moko ko tabax. waaw mbokk yi kon euh, loolu daanaka moom moo nekkoon euh, suñu ay cadeau xam xawna gudu nak quand même mais bëgg defar rek la won mu fekké ne cadeau yi dafa am ñu ñu vexé wala ñu metti ñoo ngi leen di jéggalu ta xamné da ngeen ñu dénk. fii ak juróomi at yi lépp li nga xam ne dénk ngeen ko loo xam ne diwoon nañ leen ko dañ ko bëgg a def maintenant euh, ku mu la metti rek ñoo ngi lay jégalu euh, benn seen doom moom moo doon wax mën na am kàddu yi lu si bëri du du jub waaye ngeen xam ne rek benn seen doom moom moo doon wax ngeen comprendre rek noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah